في كل زار وفي سفر حماني على ماهم مع الحس والسفر ñu di leen sant bu baax di leen gërëm ci Pastef bi ak taxawaay bi ak nag ci mbooleem dëkk yi nga xam ne jaar nañ fi nee na bàyyiwul benn dëkk ba yàlla dogal ñu di ko jeexal tey jii di nuyu sëriñ Mamor Mbàkke moom sëriñ Abdul Xafoor ak rakkam yi di sëriñ Amidoun ak mboolem ñi mu àndal ñëpp bu nu sañoon képp ku nekkal sëriñ Touba fi barab ku mu taxawaay bu mel ne bii sëñ Mamor taxawee moom lay taxawe mooy ci jub gi ak pasteef bi ak taxawu gi nit ñi ndax loolu rek la sëñ Tuubaa santaane woon kon nee na ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax waaye nag loolu du kiimaan ndax sa maam sëñ Moodu Maamun dafa am ñaari tawfeex ndax doy na sëkk doon tawfeex doon taaw borom gaaw sëñ gaawaan dafa amoon tawfeex ci sëriñ bi ndax ba muy jox sëriñ Tuubaa boppam booba ak njëbal xewagul mu am tawfeex ju rëy ci sëriñ bi ndax dafa bëgg sëriñ bi waaye nag sëriñ bi bëgg ko lool سرين عبد الخادر دانا وخنا سرين جاوان دي مستقيس ميروم سين توبا لو سرين بي نك نك تي حال بو مام شيخ انت اكسي رك سرين بي مبتي ما داي دادي نيو لا نجابوتام دي dem rek la ko wax bi ni di soñ ci teub dar salam mu wax ñooña ne leen ñii kat dañoo bokk ci sëriñ bi ba noppi nag di ay jàmbaar lool te duñ jàmbaar kon kenn waru leen a fàtte nee na démb ci bëccëg rek loolu la ko doon wax euh, kon mbooleen ñi fi teew ñëpp sëriñ baa ngi leen di nuyu di nuyu sëriñ Seexuna ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mi nga xam ne ñëw na fi ànd ak sëriñ Abdou Lahad Serigne Abdou Lahad nag liggéey bii ci loxoom laa ko teg ba mu ko tàmbalee ba nëgëni mi ngi ci def ay yitte ak Pastef ak nag li ko defe nu kawe sama njot te lépp itam lépp lu jàpp na lu koy rafetal la rek wala lu koy yokk rek dana ca taxaw te duma ci xaar kon nee na mi ngi yeesalaat ak cantam ci yow bu baax di la gërëm ndax liñ lay def loo yaa ngi koy def ni mu ko bëgg wala sax nu ko kawe waaye nag sëriñ tubaa sa maam ji ngay jëfal am nag pay kon ñi ngi lay bàyyeeg moom di la ñaanal nag mu fay la bu baax ak mboolem ñu topp sa ginnaaw ñëpp. di nuyu sëriñ Modou Mbacke si ndax mom mi kat mooy jawriñu liggéey bi moom itam jambar la lol ndax borom yitte la borom possible la boromub taxaway la te liñ la sérel fi rek liñ la sérel fi rek barab yépp mom lañ lay sérel di gëreum wa dëkk bi ci seen possible ak seen taxaway nee lol mo waral limay xat-xat. ma wax ne mënee su fee ñàkk a ñëw ndax jataay bi du yàgg ndax bëccëg lañ leen waxoon waaye gàllankoor yi ak gan ñi téye ñu waaye nag ki ñuy jëfal daal muy sëñ Tuubaa ku koy jëfal waroo soxla ko la sant waroo soxla sax ku la ko seereel ndax la ngay jëf moom sëñ Tuubaa rek a tax te moom lépp lu ko waay jëfal rek gis na ko te dana la ko fay te bu la ko fayee itam nag loo ca mas a jëf rek da nga ko xeeb kon nag ñoo ngi leen di ñaanal lu ci waay jëf rek yàlla na daje ak tawféex daje ci ak ngërëmul sëñ Tuubaa te ñu waajal bis bi xam ne liñ suñ kanam te ittey sëñ bee nag ndax moo ko digle woon. santaane ko soññ ci kon ñu ngi leen di sant bu baax nee na mi ngi gërëm nag ñii nu àndal muy journaliste yi nga xam ne ba ñuy tàmbali ñëwoon nañ ci moom mu ñaanal nu ñaax leen kon yéen it sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm nee na sëriñ Abdou Lahad mii wax na ko ne moom mi mu leen booleel nee na mi ngi leen di sant ci taxawaay bi. ak yitteel ji leen liggéey bi yitteel ngeen xam rek ne sëñ Tuubaa lañ ciy liggéeyal ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ne ñëpp maase nangu ñaan bu ñu ñaanee ba noppi nag ñu ñaan dajewaat fi déwén te leen waajal màggal gi amin leen wax amin ne wax amin salaatul lazi fi